bisimila mbokku internet yi dal leen ak jàmm kawteef amatina lu doy gis nga nag yàgg naa leen wax ne Sénégal tojul rek yem ci dafa tasaaroo ba noppi ñenn ñi force ruusit ya dëbb ko wal ko def ko sungu fas ko yéen a suukaree seen àdduna waaw li koy firndeel mooy ginnaaw coowal góor jigéen bi nga xamante ne moo lëmbe àdduna bi li ñu nemmeeku fii ci biir Sénégal mooy ab tontinu saay-saay ak càkkaay maanaam tontinu woo xamante ne la ngay teg mooy ab appartement meublé buñ lay luweel la caabi yee nga fas ca yéen def la la neex di yendoo sëy ak ñenn ñi nga xamante ne ñoo bokk ci boobule tontine ilaha illallah subhanallah maa la ko wax te li gën a doy waar ci mbir mi nag mooy mbir mi du guléet déet déet lu fi yàgg la ndax ca weerum janvier atum ca la ko Afrimak tàmbalee wax waaye mu mel ni ca boobu jamono dañ ko doon tànqamlu ndax ñu bëri gëmuñu woon ne lu ni mel xew na fi waaye tey jii mbir mi dafa mel ni lu nar a ëppi loxo mi ngi ne xus ci réseaux sociaux yi daanaka loolu sax moo leen feeñal ndax ñu bari ñun ci bëggoon dugal dañoo bañ ba di ko joytu fu ticket la mbir mi nu muy demee xale bu jigéen bu ca bëgg a bokk nag 1000 francs ngay joxe maanaam ñaari téeméeri dërëm bu fekkee ne ab taay nga de ñetti téeméeri dërëm bu fekkee ne ab diryanke nga wala francs ñeenti téeméer soo bëggee am ci bonus massage ya tirage ba nag fukki fan yu nekk ca lañ koy amal boo teggee ñu luwe la ab appartement meublé ba noppi wax la nga tànn ku la neex ci ñu bokk ci biir tontine bi nga ànd ak moom yéen ñaar ngeen yi xanaa ñu toftal ca ne kenn ku bokk ci boobule tontine sexuelle xamle na ne lu ëpp ci jigéen yi bokk ci boobule tontine ay jigéen lañ yoo xamante ne am nañu ay papier maanaam ay kayit yu leen mën a may ñuy jaay seen bopp maanaam dal ci kaw gàttal ay jigéenu mbedd lañu cëy lii senegal daal faay boo xëyee dégg lu war a tax nga jël say bagage tux waaye acca rek acca rek li ma ci métti kay mooy ay du yem ci boppi borom Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal